salaam salaam salaam asalaamaaleykum wa la ministre maa ngi lay nuyu di nuyu sa mbokk yu baax yooyu nga toog toogal nee naa leen bu ma leen xoolee damay rus li ma bëgg a wax des fois duma ko mën a wax ak sa kóoluwoo ko yi nga àndal maa ngi leen di nuyu di nuyu sama mbokk député yépp bii tam sama yëf la maa ko dund quarante ans madame la ministre dama ko dund quarante ans dama jooy dama ree dox naa di jooy ñandu defe ni dama ko sànni mësal moo ko man immigré yëpp a ma yónni tey moo tax man lii ngeen ma jox ñoruma immigré yi dañ ma yónni ci madame la ministre boo leen ma dolli woon mu neex ma wax li xew madame la ministre dañ maa yóbbante ci yow waa Genève muy dëkk bu mag nee nañu amuñu fu ñu defaree passeport suñu koy defar dañuy dem ba France wala ñu dem ba itali te immigré neexut nga dimbali leen pour ñu am fu ñuy mën a déposer carte walla wala passeport ma ñëw nag ci sama mbokk yi madame la ministre déglu ma bu baax te senegal nañ ma bàyyi xel dama dund li may wax dëgg la immigré metti na mais def ngeen mi ngeen man ci seen nguur laa gisee ñuy lebal immigré juróomi million ak ñaari million ak genn wàllu soxna naata bu fees ci nguuru Macky Sall ci seen nguur laa gisee ci mbas mi yàlla indi muy feebar ngeen jox kenn ku ci nekk trois cent euros wala trois cent dollars fii laa toog Dakar ñu yónnee ma ko toog naa fi neuf mois ci mbas mi lottu bay bëgg a dee immigré moo metti immigré moo saf mais buñ leen di ñaan ngeen dimbali ñu yéen na fekk ndimbal nekk ci sunu loxo ñun immigré yi yi laay waxal de xam nañ li may wax de ñoo mën a tooñ ñoo mën a disrespect nit ñun sénégalais yi ñun ñooy fekk fu dara nekkut ñu ñëw gas ko ba mu xóot suul fa suñuy xonjam ñun tag fani foox ñun immigré ba ma nee tëpp Amérique benn fan laa fa def dégguma anglais takk nañ ma yóbbu kaso man Coura Macky xam nga lu ma def fekk festival bu fa am ñu ne ma tiset yii boo ko jëndee cinq lay jar soo ko jaayee am 120 ma sànni bopp ba ma doon létt dem gi si aw ma licence police bi ñëw fekk ma fi ma taxaw ni ma ndax am nga licence ma ni ko déedéet mu ne ma gédaara hiya ma bañ di daw dawloog moom li dal li ma dal moo dal ñëpp après ñu woo leen yéen ñooy tooñ ba ma fekkaatee fi ma toog di jaay mu ne ma what I told you do you have a ma ne ko non mu ne ma you going to jail turn around ma tourné ñu takk ma ñaari fan laa def Amérique yóbbu ma kaso ma jàng ci jàng bu rëy lu tax ñun immigré ñu mën a tooñ su suñuy dem du ñu tàggu su suñu yeggee ñu def suñu looxu mbóoj jiñ ko état état ngi def lu mu man président Macky Sall kii toog ñi ngi def lu nu man ñun dañoo mën a tooñ sunu réewande gi nekkee fii moom la ñu yóbbu ci dëkk tubaab bi nañ ko waxta dee moo am moo am immigré laa li may dund la ñëpp di dund tey dama buub immigré yëpp def leen sama biir taxaw fii di waxta li may wax mooy dëgg li nga dund nga mën a wax dañuy tooñ dem laa ministre benn laa lay wax benn ci man encore këtt na jonn la ñu xam këtt ni jonn dañuy soxla passeport war a defar sunu këyit dañuy bàyyi ba mu des ñaari fan ñu ñëw songu consulat bi nekkoon na këtt na jonn na pare tey du mën a ne maa ngi nii samay doom juddoo Amérique est-ce que wutal naa leen kayitu juddu senegaal déedéet damay bàyyi mu ne këtt na jonn ñun noonu la ñuy dundee Sénégal dëgg la ñuy war di waxante pour réew mi jub nañ leen waxante dëgg su ma waxatee ñu yore ma ni yore jàll ca Fuuta man ragaluma li ma dund lay wax dañu mën a tooñ te duñu bu ñuy juñ conseil yi conseil yëpp la ñuy tooñ ñun waxuma ne conseil yi duñu tooñ de du def ay loox mbooj ñoom it de waaye lu ci ëpp ñun ñooy bëgg ne këtt ni joon Coura ki dafa war a am green card day bàyyi ba gannaaw suba ñëw ne conseil bi tey laa soxla sama këyit su ne ko yow da nga tardé mu def vidéo am na ku ma woo barki dem mu ni ma waxal ma madame la ministre ni ko dañuy fa merci cher collègue merci beaucoup may ma rek waxal ñu chers collègues merci chers collègues merci beaucoup le temps est fini merci euh, euh, Lamine Faye le suivant Guy Marie Sagna salaamaaleykum chers collègues ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci ne ñu ngi lay ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare xanaa bëggoon ñëw rek ci problème passeport yi ci Afrique australe muy Afrique du Sud ak li ko wër di nuyu Mozambique Zambie Zimbabwe South Africa na Namibie maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare. madame la ministre euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziare bëggoon na jàllale benn yóbbante ci problème passeport yi Afrique australe euh, Afrique du su suñu ambassade bi nekk foofu. Euh, huit country ñoo ko wër yoo xam ne ñëpp ci moom lañ yaakaar problème mu passeport te li ëpp ci askan bi foofu ñëpp ci commerce bi lañ nekk seen passeport yi di fees passeport day réer yu mel noonu te vraiment dañuy toog xëy na two years wala ñu toog after two years wala one year yoo xam ne du ñu gis koo xam ne mën nañoo defar ñu passeport te commerçant boo xam ne day dem di import te mënul am passeport vraiment liggéeyam day handicapé ñu ñëwaat ci problème mu passeport yi boo ñëwee niveau de Mozambique dañu fa am ay problèmes yu sérieux parce que dañuy nekk foofu ci problème passeport la ñu am ñu jàpp leen ci six six mois wala un an yoo xam ne duñ leen visé dañuy xëy rek bàyyi leen ñu bëggoon ngeen jéem a bàyyi xel ñu ngeen taxawu leen parce que jàpp nit ci passeport mënoo ko rapatrier mais nga jàpp ko un an yoo xam ne da xëy rek bàyyi ko mu nekkaat ci dëkk bi ngeen euh, bàyyi leen xel te loolu moo am Afrique du Sud moo am Zimbabwe ngeen gën cee bàyyi xel beneen bi ñu ñëw ci problème mu nga xam ne moo fay am dañoo nekk dëkk boo xam ne muy Afrique du Sud vraiment dëkk boobu amul sécurité la li ëpp ci koor yi fay jóge mooy ñi nga xam ne dañ leen di rey te mujj fenn te wax dëgg yàlla soxla nañ ci ambassade wala ku ñu jàppale ci ñooñ parce que li ci gën a metti da ngay xëy ñu fekk la sa place wala fekk la sa bureau wala fekk la sa workshop attaqué la agressé la rey la ubbi kees rek la ñuy def sa brada bi am na problème kaay nga jàpp ci nga dem ubbi kees maanaam kees bi du mujj fenn ñuy ñaan bu ngeen mënoon dooleel euh, spécial niveau Afrique du Sud suñu amoon benn consul boo xam ne day nekk consul comme ñu nekk Mozambique quatre consuls ñoo nekk Mozambique cinq cent sénégalais ñoo fa nekk ay mille mille ñoo nekk Afrique du Sud benn ambassade la ñu amuñu consul dëkk yi dafa sore Cape Town Johannesburg daanaka ak sori bu ñu amoon fu mel ni Cape Town bu ñu fa amoon consul danañu arranger lool parce que bu ñu ko dee am foofu tamit soxla nañu sénégalais yi nga xam ne ñoo fa nekk xam réalité yi ñuy dund foofu ñu def ko sénégalais yi foofu comme ni ñu ko defee Mozambique def ko Zambie Zambie nekk deux consuls ñoo parce que conseiller fa nekk fa la ñu nekkoon bi Moodu gañu jagle leen lool parce que xam nañu réalité yi nag ci dëkk bi loolu la ñu bëgg Afrique Sud bu ñu ko mënoon am Mozambique bëgg naa ngeen gën ci jàpp bi ma demee Mozambique mois de mais bi passé dem naa ci benn prison boo xam ne ay Sénégalais yu fa tëdd dañuy téye six mois xëy rek bàyyi leen muy Mozambique Afrique Sud noonu la mel xam nañu ne xëy na amuñu kayit moo tax ñu téye leen mais réew ak réew Afrique lañ nekk ngeen jé cee def seen këm lay kàttan parce que bu ngeen ko am na Sénégal am na africain yu ñu ko may boo ci demee dëkk bu mel ni Kenya dañ leen may visa nga def Mozambique Zimbabwe xam nañ loolu dañ leen may visa bu ngeen ci doxee am ko parce que sénégalais ya fa nekk am nañu fa good réputation yoo xam ne dañuy criminal ñoom ñëpp dañuy liggéey kon bu ngeen leen jàppalee rek euh, danañ mën a am lool beneen bi ñu comme li fa amoon daaw nga xam ne dañoo dugg ci Covid bi jàpp leen la ñu wax ñu dugg ci biir business yi nga xam ne Sénégal africains yi ñoo ko moom li ci ëpp africains yi ñoo ko moom attaqué leen ñii ñu rey leen ñii ñu yàq seen business te kenn du ci dégg sénégalais danañ ci dégg ak ñu interpellé dégg ci yeneen country yëpp ci Afrique mais kenn du ci dégg sénégalais même tweet bi gën a ndaw nga xam ne boo ko defee naqarlu ko mën na la may tuuti jëm mais day mel ni ñun amuñu fa kenn loolu la ñaan ngeen ngeen ñu koy jàppale muy ci niveau Afrique du Sud dañuy ñëwaat ci Mozambique Mozambique Euh, dafa am benn province bu ñuy wax euh, province nu mu tuddati Pemba mu nga ca boo de Tanzanie Pemba Sénégalais yi sonn nañu foofu il faut nga il faut ngeen jàppale leen Sénégalais yi sonn nañu foofu donte am nañu quatre consuls consuls ay consuls honoraires lañu amuñu doole ñu ngi def lu mën ak lu mënul dem naa fa visiter maa leen yob ndox ak ay cold ak ay cold drink ak ay lekk parce que vraiment ña fa nekk jàmbaar lañu mais consuls yi consil honoraires lañu fayuñu leen. loolu moo nekk Afrique australe ngeen gën ñoo bàyyi xel Afrique australe ci machine passeport ngeen gën ñoo jàppale ay commerce ay commerçant ñoo fa nekk ay homme d'affaires ñoo fa nekk dañuy dugg ak génn Afrique Asie Amérique fépp la ñuy dem comme ni ko sama kële waxee GP yi dañuy dugg a génn seen passeport yi day fees passeport day reer il faut ngeen jàppale comme ni ko ñëpp amee am na Europe am na West Africa fii koo xam ne da ngay jóg dem defalu sa passeport parce que moom yi dañoo am lu ñuy doxee nekkul ne chaque moment la ñuy mën a dem bu ñu ne jobante nañ fi ay agent yoo xam ne ñu defar passeport nga jóg rek dem parce que yoon yi day metti ci ñoom rawatina 1600 kilomètres day am ay bloc ay road bloc yoo xam ne vraiment ku amul kayit amul visa du man a atteindre lool kon ngeen dimbal ñu ngir yàlla utal ñu benn valise passeport boo xam ne dina nekk fa physical boo xam ne chaque jour wala chaque instant bu su amee problème bu passeport nga jóg dem defar loolu laa ci bëggoon wax et puis di la jërëjëfal vraiment soxna yi ñoo ma yóbbante pardon soxna yi ñoo ma yóbbante fee merci euh, merci Euh, Guy Marius Sagna, Ibrahima Diop se prépare.